seen chaîne YouTube SeneInfo International ak sur a baax euh, tey suñu invité de la rédaction Abdoulaye Barry lay wuyoo moom nag juriste la de formation nekk membre de la commission nationale de la communication du PDS di membre euh, du fédération nationale des cadres libéraux PDS nekk président euh, de commission de communication des jeunes du département bu Dakar. délégué commissaire politique à Dara Djolof di président de la sous-commission à la communication digitale bu PDS nekk it secrétaire général UJTL bu Yoff ak moom nag ñu fas yéene waxtaan rek ak li nga xam ne actualité politique la élection législative bi ak it tolluwaayu réew mi ñëw ak Karim Wade bi nga xam ne ñu ngi koy laamlaa bi léegi dina amoon dina amoon déet ak daal question yoo xam ne eh, day tourner autour ñu ko fay léegi actualité politique bu Sénégal rawatina bu PDS ak wàllu Sénégal monsieur Abdoulaye Barry ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga ne leen mu ngi intervention. waaw asalaamaaleykum waa Sénégal ak waa diaspora di tàmbale suñu kàddu sant yàlla suñu borom ak suñu aussi euh, di profité di nuyu sama frère. yi nga xam ne sama promotionnaire la woon di Birafos aussi ça fait un euh, di sàkk si jotaay bi mel nii euh, je pense que si ma gën ma def émission bi parce que benn bi yëpp dina suspendre woon sama mais plus que boobu léegi ñu man euh, mën nañu ko vraiment di ko nuyu di ko encouragé aussi parce que ay ndaw lañu ñu am benn lancé boo si perte ñaar nga xam ne moom mooy quatrième pouvoir si réew mi ñu nekk. je pense que maa ngi def préoccupation bi emploi bu baax ñu mën a fa def si engagement ak détermination ak vision parce que bu ko xamee ba léegi toujours varié même personne là waa Sénégal je pense que c'est un plaisir euh, di nuyu Sénégal yëpp di nuyu seetaan seetaan fu waaye mu nekk si àdduna bi ak si diaspora bi ñu leen nuyu leen jaajëfal bu baax a baax. waaw ñun tam ñu ngi lay jaajëfal ñu kontaan bu baax a baax it. Euh, ma ne ñu tam dig nañ bu baax a baax tey euh, jàkkaarloo ak yow comme ni nga waxee rek ak yu bëri euh, gisewuñ sant yàlla ci biñ jàkk euh, dajawaatee ku nekk nekk si jàmm loolu bëri sama laaj bu njëkk rek xam naa seen actualité ñu gën a fës ci seen actualité gis nañ seen député yi ñu fal bees ci lii di coalition wàllu Sénégal ngeen doon amal ab tournée bu ñu sax kon ngeen pare boobu la tournée nga xam ne amal ci différents chef religieux yi est-ce que ñu ngi ñëwaat lu waral moom la waaw tout d'abord euh, monsieur Diouf nga permettre ma si occasion bi ñu Sénégal ndax euh, élection yi ñu génn gis nañu Sénégal yi euh, wane na une fois de plus que le Sénégal vraiment dëkk démocratie la ndax Sénégal yi génn nañ et aussi choix bi dafay choisir nañ Euh, ñi nga xam ne ñoom ñu lay war a représenté au niveau de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. je pense que jot na ñu jëloon leen ñu kër vraiment parce que tey suñu amee stabilité ak tranquillité si réew mi je pense que majorité population sénégalaise ñoo ko waral moo ñu nekk si biir réew mi rawatina ñu nekk si diaspora bi euh, li Olof Ndiaye di wax rek euh, picc yi si kaw mais xelmaani si suuf gis nañ seen taxawaay bi nga xam ni def nañ ko si élection yi passé wane nañ ñoom Sénégal lañ am doon nañ aussi aussi day jot ñu leen di jaajëfal di leen bàyyi xel bu baax a baax euh, beneen bi euh, di félicité aussi député yi nga xam ne ñoom fa fal euh, muy l'intercoalition d'abord wàllu Yewwi ñi nga xam ni am nañ ci limu député toll si quatre-vingts député vraiment ñu koy rafetlu bu baax a baax et di nag defal mention spéciale à la grande coalition Wallu Sénégal bi nga xam ni bi ñu génnee si élection yi ñu ngi si génnee yi nga xam ni moom la ñu am si coalition Wallu euh, bi nekk seen kaw yàlla seen première euh, yi a nga xam ne ak yaakaar yi nga xam ne Sénégal yi def nañ ko si ñoom ñu mën ko matale. Euh, beneen bi ñoo waxoon lu am solo mooy fan yii gis ngeen la grande coalition Wallu Sénégal ñu ngi doon tourner dans les foyers religieux pour dem sàkkuwaat ay ñaan ndax balaa yow loolu sax dafa am lu jiitu parce que balaa ñuy tàmbali def sélection yi dañoo nekkoon si situation yu doy waar si réew mi ndax nit ñi demoon nañ sax ba doon lu mën a naan élection dina am ah, wala du am ndax dafa nekkoon situation woo xam ne gisul nañu le pouvoir en bi fi nekkoon taxawaay bi mu amoon rawatina ñi nga xam ne dañ leen investir ñu nekkoon ay tête de liste dans différents mun naa si lim ma ni Serigne Abdou Bara Dolly Mbacké bu Mbacké Touba ku ma ni Mame Diarra Fam ma ni Déthié euh, mu nekkoon ñoo xam ne tey gisoon nañ leen seen taxawaay si intercoalition bi. nguur gi fi nekkoon jëm ñu ñëpp ñu déggee si kaso bi rupture liste yeeyu askan bi au niveau national euh, ñu gis ni que nit ñi sax demoon nañu ba ñu doonoon dugal si ay lëgg-sërëf par rapport ak euh, parrainage euh, yooyu yëpp ñu gisoon situation boo xam ne liste Dakar bi fi xewoon yëpp si élection yi ba nit ñi seen xel seen xelam seen xel liñ ci liñ ci liñ ci boo xam ne tey vraiment dañ si amoon jaaxle mais alhamdulilah ñu yàlla ñu ma tey ba ñu surmonter obstacle yooyu yëpp. ba dem sur des élections apaisées malgré am na ay manquements yi nga xam ni ñun ñëpp seetlu nañ ko gis nañ ko si wàllum courage turne si wàllum li ñuy ak njublan ñëpp gis nañ ko yàlla def na ni on a eu une opposition forte nga xam ni démontré na devant l'opinion national ak internationale que le parti au pouvoir n'est plus majorité dans ak liste boo ne. comme gis na saa yu war a ndox. waaw loolu la ma gisee nag. remplaçant yi. pour mën a ñëw si studio bi ma laaj ñun balaa élection yi. le président Abdoulaye Wade dafa am benn coutume boo xam ne ñun waa PDS ñun noonu la ñuy doxee rawatina coalition bi nga xam ne moom la ñoom. dañu ni Sénégal dëkk la nga xam dafa am yi nga xam ne ñoom dafa am loo xam ne dañ ko am si tey suñu amee lu bëri si wàllum stabilité ak euh, li nga xam ne moo am si réew mi lu bëri ñoom dañ si joué benn rôle bu déterminant moo tax saa yu ñu dugg si ay élection dañuy jabal na ñu bëri si kër gi diine kër gu nekk ñu dem fa sàkk fa ay ñaan ba nga xam ne dal dina am si élection yi ba ba nga xam ne que élection yi dañ dugg bisimilah maanaam génn seen alhamdulilah rabbil alamin et que aussi coalition yi boobu yàlla mën ndam et bi ñu ko defee ba pare avant élection yi ñu dem kilifa kilifa yëpp su fa demee. ñu lu tànk yi nga xam ne moom la ñuy yëkkati mais bu pare euh, di rappeler relation yi nga xam ni moom la président Wade sikkoon ak ñoom avant muy nekk pouvoir ak bi mu nekkee pouvoir ak bi mu ñàkkee pouvoir am na ñi nga xam ne dem nañ sax ba ne ko président Wade musul ñàkk pouvoir parce que li mu am ni képp ko am si si biir réew yaakaar naa ñàkkoo pouvoir ay Kaolack wax nañ mu fonkee kër diine yi. ak li mu def ci culture diine je pense que loolu ay symbole la te aussi dafay baax nit ñi xam ko ginnaaw yàlla nag ni ñu defee loolu ba ñu dem ci élection yi muy génn ci ak alhamdulilah ak euh, ak benn victoire mu député yi am ñu toll ci vingt-sept député le président Abdoulaye ñu waat nañu toppaat tànk yi nga xam ni moom la ñu defoon mooy nañu delluwaat ci kër kilifa diine yi wax leen sàkk ay ñaan yàlla dimbali nañu ba stabilité am na ñi nga xam ne ñu woon si ay jafe-jafe nekk si kaso yi ñaan nañu ñaan nañu si euh, si jàmm ba yàlla def ñu nekk ak ay député ñu dem présenté leen député yi nga xam ne ñoom la askan wi euh, tànn ñu ñaanal leen ba liggéey bi nga xam ne liggéey boobu mën a yomb ba nga xam ni tey euh, li askan wi di xaar si ñoom ñu mën ko wane kaw loolu bi demee tamit kilifa diine yi yàlla dañu loolu mais li si li ñu si gën a si tournée boobu mooy fépp foo dem. dañ naan leen nit de ñëw nañ fi ndax bu ñëwee bi ngeen sàkku ñaan jigéen rek fi mm-hmm. ñu bëri ñëwoon nañ fi mais li ngeen def nii yéen kott yéen ko def ndax ñi fi amul ñëpp bi ñu demee téléphone sax dégguñu leen waaye yéen da ñëwaat nañu carrément ñaan ñi ngeen doon ñaanal gis nañ ko ñu ngi waat sàkku ñaan ñu ne nag comme que ñun ko def il faut aussi loolu ñu magnifier ko wax bu baax a baax et aussi loolu ñu si remercier le président Abdoulaye Wade si vision si gis-gisam si xam bi mu xam sénégalais ak cër bi jox kër kilifa diine yi ñu ngi siy gërëm bu baax baax ak suñu frère Karim Meïssa Wade et aussi di ñaanal le président Abdoulaye Wade yàlla may gudd fan ak kattan si nga xam ne moom mooy euh, élection législative yi dafa mel ni PDS gannaaw bi nga xam ne nag euh, dañuy wax jafe-jafe laata élection yi am bi dafa mel ni. ak élection législative yi xaw ngeen reprendre benn force ba fi mu nekk nii sax yéen a ngi ñu ngi leen di dégg yéen a ngi wax baax di waajal li nga xam ne moom mooy élection présidentielle noonu la fa demee lool. waaw waxal waxal rek instant yi ñoo ko di réew mi <laughs> waaw ñoo ko di réew mi rek instant yi PDS moo fi nekk mais bon pour te dire li nga wax dafa am solo parce que aussi il faut que nit ñi di rappeler wu di xam ni que le PDS euh, dafa nekk. première bokk si première dafa nekk sax première partie bi nga xam ne si euh, parti traditionnel yi moom moo nekk première force politique du Sénégal et que loolu aussi de 1974 bu ñu ko taxawalee euh, day am benn traversée du désert boo xam ne day am si parti politique bu nekk yàlla def ñu perte pouvoir en 2012. bu ñu perte pouvoir en 2012 gis ngeen nga xam ay ministres yi président Abdoulaye Wade utilisé de 2000 à 2012 gis ni ministres yooyu yëpp daanaka ñu daal. ñu fi dese le président Karim Wade fi dese euh, euh, le ministre Khadim Gueye bi nekk Diourbel dese fi le ministre Tange Bally Ndiaye euh, ak je pense que ay ministre conseil su bëri ñooñu lañ des ñi nga xam ne ñoom ñoo des si le président Abdoulaye Wade fusé de deux mille deux mille à ah, deux mille douze ginnaaw loolu nag soo ko amee nga xool député yi nga xam ne am nañ ko sénateur yi fi nekkoon député général yi fi nekkoon ñun ñëpp jóge fi PDS dem fekk di le parti au pouvoir loolu su amee euh, day am benn mois boo xam ni il faut que mu affecté le parti mënul ñaax parce que difficulté mm, dafa bokk si àdduna rawatina si ay organisation hmm. di gis benn entreprise boo xam ne day dox dox dox am solo tenir euh, chiffre d'affaires mais en mois de léegi benn mois boo mais ça veut pas en mois de ñu xool fan la tolof fi nekk ak nan la ñu mën a xoolee ba génn si xam ne jafe-jafe yi nga nekk. yaakaar naa loolu day am te lu si li si ëpp solo si solo mooy que ñun nekkoon nañ si ay jafe-jafe mais yàlla dimbali à ñu bëri jaaxle woon nañu ba ni PDSDR ce n'est pas que le PDSDR mais dafa amul benn stratégie bi ñu adopté woon. Mhm. mooy que day toll moment boo xam ni dañoo dañoo préféré woon def une communication interne maanaam bu leen ñu communiquer ak ñi xam ne ñoo nekk de l'extérieur mais dañoo préféré def communication boo xam ñun suñu biir la mooy militants yi responsables yi. mouvement de soutien yi fédération yi département yi ba nga xam ni ñu xool lan mooy suñu jafe-jafe ak nan lañ ko mën ak lan moo tax parti bi bi nga xam ni euh, fi mu nekkoon ba léegi nekk fi yaakaar naa yàlla dimbali nañu ba ñu suñu mën loolu si lañu relancer woon euh, l'opération des ventes de cartes ba nekk carrément que comme que nit ñi dem nañ il faut que ñu leen am na ñoo xam ne génn nañ àdduna il faut que ñu remplacer leen am na ñoo xam ne mënatuñu seen yàlla yàlla nañ yàlla yëg xale àddina bu nga xam ni ñu xool pour mun a defaat le passé et je pense que bu ñu ko defee euh, loolu noonu moo nekk processus bi nga xam ne si la ñu nekk processus boobu noonu tey moom moo ñëw sur les élections locales soo gisee ñun daanaka élection yi euh, communiqué wu ñu sax locales yi passé waaw ku ñu gis baax donc su fenn suñu publicité bi nga gis dans les dans dans les télé on a opté bàyyi nit ñi nga xam ne ñi ngi si base bi ñu def liggéey comme kii à leur niveau ba nga xam ni législative bi moo nekkoon enjeu bi nga xam ni moom la ñu visé woon si kaw loolu noonu bi ñu excès de soo ñu xoolee PDS bi nga en deux mille euh, vingt bi ak bi ñu gis local bi village parce que daf daf li ñu wax rek PDS kenn jàppal ni ñu créé suñu euh, parce que c'est un grand parti boo xam ne on a opposé pendant vingt six ans exercé le pouvoir pendant douze ans nekk dans l'opposition pendant dix ans ce qui montre carrément que loolu moo waral. Euh, ñun xam nañ fi ñu jëm xam nañ ne leen fay eggee parce que le président Abdoulaye Wade daf ñu mës a waxoon am solo mu ne vous savez def ngeen opposition ba pare xam ngeen nan la ñuy mu ne def ngeen pouvoir ba pare xam ngeen nan la ñuy gérer pouvoir mais maintenant vous voulez revenir au pouvoir bu am ngeen tous les éléments pour revenir pouvoir je pense que silence boobu noonu seen nekk tey soo gisee résultat yi nga am en terme politique euh, parti politique parce que. ñu bëri dañoo donné en terme de coalition parce que coalition daje la mais su paree kenn ku nekk dangay ñibbi sa kër je pense que tey su kenn nekk ñibbee sa kër war nga xam kenn ku nekk li ngay peser et en matière politique sur les partis politiques PDS amul kenn koo xam ni mën na dirante ak mbàdd PDS parce que élection yi ñu génn PDS moo ëpp lim si député yi nga xam ni moom la am si élection législative bi à part le parti au pouvoir bi nga xam ni moom moo nekk au pouvoir avec euh, méga coalition loolu yëpp moom moom noonu la mais pour revenir rek le PDS actuellement mi ngi en marche mi ngi respirer en très bonne forme macha allah et que comme ni ñu wax rek euh, ñi ñi ngi woon si lancement ñi ngi woon si phase bu jaaykat yi dinañu jaay suñuy carte installer les bureaux installer les commissions euh, def renouvellement des instances muy judiciaire mel ak ak ak yeneen fédération yëpp suñu paree nag ñu préparer suñu congrès. bu ko defee ñu investir suñu candidat ñëpp xam ne suñu candidat muy euh, Karim Meïssa Wade incha allah ñu def mu daal di en février deux mille vingt quatre Karim dinañ ñëwaat si moom mais damay dikkaat ci euh, élection yi ndax euh, tey difficulté difficulté yi nga xam ne amoon kenn ko ndax est-ce que defu tey da ngeen demoon ba tiit ba tax ngeen ànd ak coalition intercoalition yeewoon boobu ñu bëri di jàppee ne coalition de circonstance la rek ngeen amoon. waaw xam nga man wax naa ko si ay plateau yi moom mujjee moom mujjee def parce que nee naa sénégalais yi parfois doo xam ne la ñu bëgg gis ngeen bi ñu jógee si élection locale sénégalais yi ñoo ni opposition bi dañuy ànd parce que expérience bi c'était en 2017 dañ ko bëggoon mettre en place su fekkee da ngeen fàttali en 2017 euh, Khalifa Sall mi ngi woon si kaso bi kenn waa mi ngi woon ñu ne woon boobu Idrissa Seck était dans l'opposition ñu ne woon léegi dañuy jël opposition bi yëpp ñu def benn liste liste boobu noonu ñu doon proposé Euh, jotul mu ànd jotul am si la de façon dispersée malgré ça le PDS moo ñëwoon deuxième après euh, le parti pouvoir bi ñu sol parce que boobu suñu coalition à l'époque c' était Wattu Sénégal ñu ñëwaat en deux mille euh, vingt deux élection locale yi ñun bi élection ñi ngi am malgré am nañu ay département yi nga xam ne lu ma lu toll suñu département yoo xam ne demuñu fa lu toll nii si cent cent mille communes yoo xam ne amuñu fa mais malgré tout cela am quatre cent quarante deux mille six cent euh, et quelques mille voix loolu si un parti politique bi nga xam ne am na ko su biir Sénégal na nawle yi nga xam ne ñoo seen côté bi xam nañ PDS ban poids électoral la am parce que ñun ak ñeneen ñi peut-être dafa am différence ñun on a des militants qui nous ont fidèles ñoo xam ni ay base lañ foo dem si quarante six départements si Sénégal sauf soxla responsable PDS. ñun doo xoolal aussi parti yëpp rek non ñu amul si parce que am na ñoo xam ne tey soo duggee ñun man j'ai fait le tour du Sénégal.

ñëpp tournée suñu amee Sénégal si président Ba lay dugg parce que moom moo yàgg def tournée Sénégal xam mu si moom soo xoolee euh, tey li ngeen ay coalition de euh, circonstance mënu mhm. nekk euh, coalition de circonstance parce que tey dañu foo xam ni parti au pouvoir bi nekk gis nañu que dafa defoon négociateur parce que il faut que ñu comprendre dañu moom ni interpellation parce que tey suñu demoon si élection yi euh, président Macky Sall dana gagné les élections mais ñun dañ ko contrecarré à la dernière minute loolu moo taxoon tey mu amoon benn euphorie boo xam ni doon jël des personnes yoo xam ne dañu bi parce que affaire bi da ko parce que soo xoolee interpellation bi ñu ko tëgg dernier jour bi nga xam ne moom la ñu ko déposé liste yi d'ailleurs liste yi sax bi ñu koy complété ñu ko complété biir direction nationale des élections fa lañ ko mujjee eggal ni si yooyu noonu pour mën a bañ a perte du temps parce que à minuit su la fekkul dans les si nga ñëwee dañ soo xoolee euh, Macky le président Macky Sall li mu député au niveau national yóbbu ko dans les départements su ko si département yi système bi système proportionnel maanaam raw gàll maanaam tey mën a yow suñuy mu am euh, juróomi candidat juróomi euh, nga xam ne ñoo ñuy war a fal suñuy ñett ñaan ñi juróom ñëpp suñu tànnee yow nga am ñaar ñett ñi xam nga amoo majorité ñett ñi nga xam ne tànn na ñetti opposition yi maanaam opposition moo am majorité mais ginnaaw boolewuñu seen doole boobu noonu loolu mooy tax le président bi nga xam ne moom moo fay nekk day am doole day raw gàtt léegi nag ñun bi ñu xamee semence boobu noonu dañoo ne il faut ñu fédérer suñuy force au sein des départements parce que soo xoolee wàllu dafa maintenir li seen au niveau national yéen maintenir pour vous dire que c'était c'était euh, benn coalition stratégique parce que soo xoolee dans l'histoire politique c'est la première fois ñu am une intercoalition parce que sur le plan administratif du exister mais sur le plan politique day exister moo tax sur le plan politique ñu contrecarrer ko dans les départements département boo dem soo ñëwee Dakar foo gis euh, bannière Yewwi la ñuy dem mais si bannière Yewwi da ngay gis un candidat day Wallu day nekk si biir euh, listu Yewwi dans le département de Dakar nga dem département de Kébémer bi nga xam ne PDS moo fay compétir Wallu Wallu nga gis si bi benn candidat Yewwi moo nekk si biir parce que loolu noonu moo tax le président Macky Sall ñu mën ko contrecarrer contrecarrer boobu ñu ko def si élection yi bi ñu fa duggee ba def analyse bi ne opposition bi Wallu ak Yewwi suñu àndee daanaka le président Macky Sall gën gaa néew gën gaa néew ñun on va se trouver avec quatre-vingt-dix députés te quatre-vingt-dix députés yooyu noonu lu am la. loolu moo nekkoon politique bi parce que c'était pour imposer une majorité à l'Assemblée nationale et Dieu a fait que cette majorité là on l'a imposée au président Macky Sall mais gis ngeen ce qui s'est bourraterie yi am au niveau de Matam dama nekkoon Matam man je suis samay parents ñu ngi Fouta bi ñu a. des années mais loolu a ko wax man man am naa ay naa yoo xam ni envoyé ma ay message wax ne fii si Tukulóor fii ak doo xaa maay parce que dama lay wax ñun à Fouta jàppee Wourossogui Matam. nga dugg euh, Galaya ñëw ba Borelao dem dem dem dem kii Dunguura Alpha euh, bu ñum euh, foofu yëpp da ngay ba ñum am na des chefs religieux yi nga xam ne ñoo construire mouvement pour uniquement intégrer l'intercoalition pour que Macky Sall jógee foofu noonu ñoom sax ñoom ñoo koy wax seen bopp ñu ne carrément que Macky Sall ala doon foncier Fouta Macky Sall ji yaa ngi maanaam Macky Sall amul titre foncier Fouta Macky Sall moomul Fouta. mais nag a à am. xam nga gis nga man je suis je boo xam ni euh, dama objectif si si si sama kii analyse nee naa leen dañu am ñun au niveau de l'opposition parce que lépp mënu mat am na ay manquements yi xam ne am nañ fa amoon ay responsables yu dëgër dëgg dëgg dëgg que Macky du am fa am mais le problème en est que parfois y a des responsables fa nekk dañu mel ni comme man des responsables yoo xam ne am amuñu doole financièrement amuñu ay ay yenn assises yoo xam ni dina am lu leen mën a dimbali. ba nga xamante ne sur ay yenn menaces yi ak yenn kii mais gis nañu à Fouta euh, des yoo xam ne carrément amul signature PV yoo xam ne amul signature yoo xam ne moom lañ ko envoyé euh, euh, tribunal bu Dakar gis nañu que carrément bëggoon nañu ko parce que seen seen seen Abdou Bara Mbacké suñu conférence presse wax na ko léeg ministre bi nga xam ni ñëw na fi ñu proposé benn jeune dix millions pour dix PV pour échanger pour vous dire que carrément ñoom si scénario boobu mënuñu woon nangu opposition bi di am majorité à l'Assemblée nationale deux députés yooyu noonu ñu jéem a lijjanti pour am au niveau national deux députés pour mën a ak opposition bi moom lañ nekkoon ñu jéem a xool comment ça pour xel bu yomb benn élève bu doon def sixième soo ko soo mën a tolloo wala ñu méngale ko en électoral ak Dakar bi nga xam ne cinq millions sénégalais ñoo fi yeewoo am na yoo xam ne yëriwul maanaam mais loolu yëpp day wane ni carrément que kii lan la ñuy wax euh, la peur a changé de camp tey ñi nga xam ne ñu ñoo doon xool histoire politique Sénégal mosuñu woon yaakaar ni jamono dina dox bu le président euh, bi nekk en exercice di dem ba nekk minoritaire devant une opposition organisée parce que bu leen fàttali le président Macky Sall. mais minoritaire comment parce que. loolu la le président waaw le président Macky soo xoolee élection 2017 bi ñu jógee. mi ngi amoon cent vingt cinq députés sur les cent soixante cinq députés bi ñu paree si élection yooyu noonu le président Macky Sall avant législative législative bi di jeex il s'est retrouvé avec cent quarante cinq députés ñun au niveau de notre coalition gis nañu fi président ay euh, parlementaire ay ñoom Momadou Diagne Fada ñu bëri dañu woon dañu ñoo lâché ay ñoom Omar Sarr dañu moo lâché dem rejoindre le président Macky Sall gis nañu fi ñu bëri ñoo xam ne ay députés euh, tey comment se fait-il que mu am 145 députés yow ñuy ñëw ba nga xam ne que carrément dañuy dem ba ñoom seen biir waxuma trouver le terme de ballottage entre l'opposition et le pouvoir en place de l'histoire du Sénégal bi ñuy daree organiser élection ba léegi c'est la première fois un président en exercice qui am moins de cent députés moins de cent députés c'est la première fois dans l'histoire politique bi am te pour tuddee noonu la carrément le de la République par rapport au chiffre mais assemblée nationale dafa am fonctionnement bu muy doxalee tey y' a certaines lois organiques ak yenn fonction yi nga xam ni carrément que si wàllum ay fala président yooyu noonu tey soo amul majorité absolue bi nga xam ne mi ngi toll si mu plus de quatre-vingt-dix députés maanaam mënoo am majorité pour mën a imposer yenn yenn yenn possibilités yi nga xam ne moom la bëgg moo tax le président actuellement mi ngi def tout son possible ni mu wëree député. ñun on reçoit des appels yoo xam ne suñuy député yi ñu far si wàllu di pour jëm leen corrompre. ah dégg dégg nañ donc la même chose mu ngi xaw ci côté opposition ñoom tam ñu ngi jéem a. waaye xam euh, euh, pas d'argent pour assister les députés loolu moom je pense que il y a de sensibilité à 14 ans opposition amuñu xaalis pour proposer benn député ne kaay rejoindre ñu jox la xaalis le parti au pouvoir. nga yaakaar ne xaalis amul possibilité bi dina ko jaral ñu lijjatee euh, xaalis yooyu noonu. xam nga tey c' est pas ñun opposition fi ñu toll askanu Sénégal moo yónni opposition Sénégal parce que yi da koy wane de façon honorable lañu tànnee yi loolu ñu tànn yéen ñu doy bi fi nekk gisatuñu suñu bopp du nit ñi seer na dëkk bi jafe na sécurité amatu si réew mi nit ñi sonn nañ Sénégalais xamatuñu carrément ba dëkk bi nga xam ne dénk ko le président Macky mu askanu Sénégal une gouvernance sobre euh, et vertueuse gis nañu que carrément loolu yëpp amul lenn loo xam ne am na si sénégalais yi tey lañ gën a sonn sénégalais yi tey lañ gën a xiif sénégalais yi tey lañ gën a rafle sénégalais yi tey lañ gën a jaaxle parce que dund gi seer na seer boo xam ni foo ko natt romb na ko tey sénégalais yi amul kenn koo xam ni mën na respecté euh, li nga xam ni moom la waroo ak ay njabootam muy ndékki añ ak reer kër yi nga xam ne jamono ji am nañ ko dañ leen compté c'est ça la réalité ñi ko gëm ak ñi ko gëm yëpp loolu mooy réalité bi nga xam ne moom la sénégalais yi dund bis bu yàlla sàkk je pense que si dans le cadre boobu noonu nag le Sénégalais yi commencé jël seen responsabilité war nañu ko carrément pouvoir bi nga xam moom moo fi nekk doy nañu si moom sëkk na dem ak jàmm ñu organiser des élections libres et transparentes et que ñu jël euh, le vingt le soir du 24 février incha allah ñu jël leen Karim Wade mu jël Sénégal. bu ñu si waatee si loolu yaa ngi wax euh, Karim Wade mais Karim Wade moo xam ne fi mu nekk nii euh, mën que ne xamu xamu gi def nekk ni mbirum ñëw bi dañuy commandant dina ñëw dina am ne si ak déet mais ba léegi yéen ñi yéen yéen ñi ña ngeen wax ne candidat wala wala da ngeen am assurance ne Karim day ñëw. waaw xam nga le cas de Karim Wade moom je pense que bu ñu tànnee suñu ñëw du bëri bëri bëri parce que prochaine affaire kaw Karim Wade ñu bëgg yàgg. Hmm. parce que d' ailleurs dama profité occasion pour def ko une mention spéciale félicité ko parce que nit ñi dañuy fàtte ni le président bi la le président Karim Wade. moom mooy suñu euh, secrétaire national chargé lépp lu jël si stratégie ak modernisation tey si li nga xam ne moo xew si résultats yi da si joué une grande partition ba nga xam ne tey lan bi ñu am ñun dañ koy delloo jubal si si si li nga xam ne moom la ñu am liggéey bu mu si liggéey. waaw waaw li ñu naan Karim mooy xam nga doxal ji bi Doha boo xam ne dañu def responsabilité man nañ ma def responsabilité na fi jàll ñu def responsabilité euh, keneen ak keneen nekk si parti bi ñu jox leen responsabilité yaakaar na moom dañ ko jox ay responsabilité moom devoir am na sañ-sañ jox organisation euh, kii euh, xam moom si liñ ko liñ ko ko dégg si secrétariat national bi nga xam ne président Abdoulaye Wade dafa en place le président ay pàcc bi nga xam ne dañ si nga xam ne moom jëm si parti démocratique sénégalais mm. opération jaaykat yi nga xam moom la ñuy def si moom la jógee parce que moom mooy yor lépp lu jëm si jumtukaay yooyu noonu jaarale ko si suñu frère Saliou Guèye bi nga xam moom mooy Saliou des parce que parti politique bi ñu yor dafa am une organisation am une administration parce que parti bi nekk yëpp ñun on a une administration qui fonctionne et une administration de très haute qualité parce que le parti démocratique est un très grand parti politique loolu ñëpp xam nañ ko lu ñu muumalaat wala ñu wax ordinaire et je pense que tey euh, li ngay wax si cadre amnistie une fois que ñu répété ko ñun amul fenn fu gis le président Karim Wade demandé ak l'état du Sénégal mu amnistie ko amul amul benn responsable bu kii di conseil du parti démocratique sénégalais buy demandé euh, amnistie pour le pour le frère Karim Wade ñun li ñu laaj dafa leer Karim Wade dafa ne poursuivre na personnel ak ay doomam bëgg na ñu def la révision de son procès et possible parce que lu question de Karim Karim Wade bi mu demandé la CEDEAO li nga xam ni moom la président Macky Sall nekkoon jamono bi muy nekk di exercer présidence si la ko CEDEAO notifié wax revoir le procès de Karim Wade parce que procès bi dafa nekk un procès boo xam ni respecté wu ak ak yelleef doomu aadama ñu dem le groupe ñu rectifier la même chose ñu dem le comité des droits de l'homme bu Nations Unies wax même chose comité de l'homme aussi wax la même chose mais carrément état du Sénégal ne réparer injustice bi nga xam ne mën na causer de faire kenn waaj ba faire fekk ay dommages et intérêts pour revoir son procès et tout récemment durant les élections ces faits derniers jours mais gis nga l'état du Sénégal a été condamné par euh, euh, la cour d'appel bu Paris sur le cas de Bibo pour war a fay war a fay. cent cinquante milliards la war a fay dina bougé te musu ba léegi gisoo état du Sénégal démentir ko gisoo ba léegi ñu démentir ko te dire euh, li rek euh, projet Karim dafa nekkoon théâtre politique mun projet bi waruñu ko def tribunal dañoo war a dem grand théâtre woo militants yi ak ñëpp ñu defee foofu projet parce que théâtre lañ doon def war nañu Sénégal ay commission la war a war ay milliards Sénégal ñu ñu ñu ko euh, jox ay ay. ay kii nu mu ay avocat di wër àdduna bi dem noonu si jënd si ay hôtel si alalu contribuable yi nga xam ne ñun suñu impôt la mooy yi ñuy fay moom la ñu def noosee ko bu léegi foofu ñu lan lañ jëlee si Karim Wade bu léegi amul lenn loo xam nga xam ne wax nañ ko xam ko xam nga non wax da war a teg si firnde yu leer je pense que bi ñu attee Karim Wade avant ñu koy jóg ak bi ñu ko jàppee ak bi ñu koy tëj chaque jour ñu doon def seen conférence de presse di wax askanu Sénégal bi ñu demee ba tëj ko ba ne ko ba ni carrément que mille milliards yi ñu doon tudd ñoom dansoo ba ni alal boobu noonu Karim Wade jënd ko ñu ñëw toog askanu Sénégal génn ay documents yu leer naññ. jox ñu ay ay référence yu nañ ne leen xaalis Kayewade bii ñuy jël fii ak fii la ñu jëlee dem leen ngeen ñu ngi nii bind nañ ko yóbbu nañ ko trésor parce que trésor moom mooy suñu baax ñun alalu Sénégal foofu la nekk bu ko defee ñoo xam ne carrément loolu dëgg na mais ba fi may wax ak yow amul lenn loo xam ne teg nañ ko si kaw taabal bi loolu du fekk jarul Kayewade ñu gaañ ñu dem jëli ay comptam ay ay oram ak ay bisom ay kii loo xam ni maanaam dañ sax déshonoré euh, loo xam ni doomu ki nga xam ne dafa génn àdduna. xaalis yi xaalis yi wax nañ naan ci ay comptes laaj njëkk fa la ko jëlee mooy Singapour compte yi nga xam ne dañ leen naan ay compte qui n'existe pas mais je pense que su fekkee nekkoon tur nekkoon tribunal mais dégg nga kenn baat mu si wax leen su fekkee kon Singapour existe na yéen yéen a yor armée yéen a yor seen police yéen yéen a yor seen avion defee ma si avion ñun ñëw ma ànd ak yéen compte boobu noonu soo leen ma ko wanee ma signé leen ko décaissé leen xaalis boobu noonu ni mu tombé période bu ko defee soo leen ko indee askanu Sénégal bi ngeen joxe ko ñu jëndee ko pense que tey foo xam ni indi nañ fi Sénégal bi nga xam ne kay waata ko moom lépp dañ jël alalu jàmbur ñoo xam ne depuis euh, Jérusalem nañ nekk Sénégal am nañ ay ñu yoo xam nga xam ne ñi nekk États-Unis nekk des généraires di liggéey dans dans société di liggéey si société société électronique yaakaar naa ñoom ñoo patrimoine bu ko attribué le président Karim Wade da ngay sonn ñoom wax nañ ko biir projet bi léegi ñoom benn dir lañu am seen Sénégal seen àdduna mooy dir bi mooy le fait qu'ils sont amis avec le président Karim Wade mais ban loi moo interdire et euh, ñu am une relation d'amitié mën a yow mën nañ nekk ay xarit mais sa patrimoine dañoo wax attribué sama patrimoine dañoo wax attribué Sénégal la ñu nekk. peut-être day dë dëgg ñu rek attribué leen ko vraiment dañoo am lu ñu topp amee ñuy def ba ba gis ne peut-être ñoom laale nañ ci euh, mbir mi. dama ni li gën a pour résumer pour résumer problème mu jeex. problème créé ñaar fukk ak juróom doomu aadama lañ doon topp biir parti démocratique sénégalais mais kenn kese moom lañu soxla woon parce que mooy le potentiel adversaire de Macky Sall muy le président Karim Wade ñeneen ñi si des ak le président lu tax boobu léegi yóbbu ñu leen créé seen dossier Abdoulaye Wade mi ngi fi Ousmane Ngom mi ngi fi Madické Niang mi ngi fi ñu nekk tey Omar Sarr li fi xew yëpp ñoom ñëpp instant ñi am ne sax ay pour te dire que carrément loolu dama ne la théâtre bi ñu nekk mënul dindi le fait qu'on était dans une scène théâtrale bi nga xam ni moom lañ tegoon le candidat Karim Meïssa Wade uniquement pour leurs propres intérêts comment liquider yàlla il fait bien les choses tey ñoom lépp lu ñu defoon si Karim Wade waa affaire ñu ngi réclame le retour de Karim Wade ndax léegi pour vous dire que carrément tey ñoom si scénario bi ñu nekkoon doon nax askanu Sénégal sénégalais yi moo dem ko démontré leen démasqué leen wane leen ne que Karim amul benn nit bu mos a porté Sénégal génne la Sénégal dugg la si avion coupé réseaux sociaux coupé courant génne la si réew mi yóbbu la beneen réew c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal. ndax jàppoo ne tey maanaam am na si boobu ñu affaire euh, ndem ko ak ñeneen ñoo xam ne ñu wax bu ñu affaire leen ko. ndax loolu day gën a yomb ñu doon ñuy defaat euh, gën a yomb si yéen it ñuy defaat révision de projet boo xam ne mën na am dina jël temps te mën na am it ñu defaat ko yonte ko ay daal. xam nga révision de projet mu jël temps parce que bu ñu fàtte fàtte xalifa le cas de Khalifa Sall bi ñu ko bëggee rek l'état du Sénégal daa réglé en six mois cour recours yëpp en six mois réglé nañu lépp ba calculé ko par rapport ak élection législative 2017 nous nous il nous reste quinze mois pour dem élection présidentielle état du Sénégal suñu bëggoon réviser le projet de Karim Wade mën nañ ko def le plus rapidement possible ça veut que xam nga dafa am nit ñi ñu umpalee Karim def nañ pour honneur am xam nga ñun peut être am ñoo xam ne dañuy banaliser rek mooy honneur mais gis nga su fekkee da ngay exercer yenn fonction lu mel ni mé médecine lu mel ni euh, corps euh, magistrat yi dañu naan je le jure sur am na ñoo xam ne honneur dafa am sax si ñoom loo xam ne valeur suprême la si ñoom moo tax ñoom loolu noonu dañ dañ dañ koy sàmm moo tax mu ne pour parce que lu toll noonu nga teg ko pour mos doomu aadama dafa doy waar de ce fait que tey bu si am li ñu jógee ñëw fekk si réew mi ñu xam kon mu xam circonstance ak mbéwaay yëpp mais malgré tout dafa accepté parce que honneur la doon sauvé et je pense que war nañ ko mën a nangu loolu noonu ba nga xam ne procès boobu noonu ñu ñu attewaat ko ba ñu xam su fekkee kay waat moom moo leen wu si dëgg li pour état du Sénégal war def na ko def. de su fekkee moom moo nekk si dëgg état Sénégal na am kilo wax ne que carrément que doon def théâtre la et que Guédiawaye nekk si dëgg ñu réparé injustice boobu yi nga xam ne moom moo nekk si moom peut être soxlawul xaalisu Sénégal soxlawul dara mais honneur bi nga xam ne moom la ñuy salir pour gars yi mën ko laver et je pense que ñoom suñu bopp laver nañ ko parce que Macky Sall a été euh, le directeur de campagne gratuitement de de Guédiawaye parce que tey li ñu doon def yëpp yaakaar mën je pense que tey la Karim Wade am gën a am maaxaam tey la Karim Wade gën a nekk si xolu tey la Sénégalais yi gën a am si moom yaakaar et que ñëpp gis nañu que carrément que moom mooy le prochain remplaçant le successeur de Macky Sall au au niveau. de l'administration yéen yéen gis am na ñoo xam ne Ousmane Sonko lañ gis. waaw mais ñoom loolu ñoom la engagé. loolu bokk na si communication. Euh, euh, euh, Pastef nii nii taa Pastef. mais man PDS moom ah, la. dëgg man xam naa produit bu ma yor. Ah. et que produit boobu noonu tey carrément jour bu ñëwee biir Sénégal boo mën a sax ñëw mais photo yi gis rek mi ngi tiital ñu bëri mais jour bu ñëwee Sénégal wax dëgg yàlla. waaw waaw yéen ñoo ngeen jàpp pour daal réunion moo leen gën a doon amnistie bi ñuy bi ñuy loo daal. Abdoulaye Baye dama lay ñëwaat si beneen laaj bu sax mooy doon sama laaj bu mujj ci gis nañu Saint Manga mu gisee li nga xam ne moom mooy. PDS moom moomu nekkoon leader nekkoon tam ah, député ana ban jàngat nga waaw euh, Toussaint Manga euh, benn kii rek laay mooy xaw ma de mooy rectifier laay wax wala Toussaint bi mu demee dafa yàgg c'est dafay soog a officialiser hmm. mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekk rek moom gis at yi ñu doon posé ak ni ñu xam nañu dem na bu mais plus que parti politique multiplication ak addition ak lu bëgg du ku mer rek wala ku bëgg a rek nga yombalal ko dem ñun dañu nekk parti bu mag lu mu doon ñu nañu xam sa mëbët ñu bàyyi la ko keroog ngay bëri sa at si sa si sa bopp te duñu la si forcer dara nga def ko a sa conscience tranquille ñu soxla nangul li nga bëgg et je pense que soo leen fàttali ko si élection locale yi nga xam ne yii passé Toussaint Manga coalition bi nga xam ni moom la ñu bokk ñu wàllu Sénégal dañ ko joxoon mandat pour mu nekk euh, candidat au niveau euh, de la commune de Ziguinchor et au niveau départemental mu dem déposer candidature au niveau du département bàyyi commune bi ñun bu ñu ko saisiree laaj ko lu tax mu war a loolu mu ne ay stratégie boppam la su fekkee yow responsable la ay rek nit ñi dégg la ak lépp lu mënta am war nga mën waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy sa kilifa ba nga xam ne que carrément li nga moom li nga li nga jox di yow yaa moom nga gis ko mu génn di campagne tudd ne diw mi nga xam ne mooy compétir si commune bi ne képp ku ànd ak man na nga dem voté diw je pense que loolu un responsable pour poser acte yooyu su fekkee ni mi ngi si ligne mais comme nous sommes un parti très responsable dignité fraternité euh, ak ak ak justice. dañ ko bàyyi ak xelam bi ñu jógee si élection noonu ba élection yi jeex bi victoire bi amee mu toppaat beneen leader taxaw di jubilé ak moom di wax ne que carrément ngeen soxla moom moo ko ñor wane nañ leen carrément kooku noonu am na beneen xar kanam bi nga xam ne dañ koy incarné. kon wax ne investir ko demul noonu. dañ dañ a investir. non demewul noonu de. demewul soo xoolee sur la liste nationale de Wallu tu sais mi ngi si position. ah est position mu ngi di problème. non position mu ngi ay moromam ñoo nekk si man mii maa si responsable la si parti investir ñu ma baat naa campagne def naa lu tur du Sénégal baat naa campagne ba campagne bi jeex nekk ba si benn liste du ma suppléer mais parce que je un un militant bi nga xam ne dama choisir militer au sein du parti du responsabilité wala du investiture mooy tax ma manqué sama engagement engagement fépp foo mënti nekk da nga ko war a wane mais quelqu'un boo bi mu manqué respect sax le ñu investir ko ak le président Abdoulaye ay moromam mu bàyyi loolu yëpp dem tëddi France dem si ay soirée di dem ay yoo xam ni di manqué respect liste bu ni ñu ngi ko sékkal dem naa dama gérer si liste nationale bi su fekkoon dafa jaaroon si liste bu nar a doon député nan lay xoolee askan Sénégal nan lay xoolee ñi ko fal nan lay xoolee parti bu ko investir ak coalition bu je pense que dañu nit ñi dañu war a raison nit ki dana nekk député pendant cinq ans bu ñu lay investir say morom ñoo fi nekkoon ñu tànn say biir morom investir pendant cinq ans ngay doxal UGTEL moo ko étouffé pendant depuis deux mille dix bu léegi l'UGTEL a été étouffé par tous ses dara dara doxatul et dans notre parti l'UGTEL était le fer de lance de notre parti jeunes ñoom ñoo nekk yow bouclier bi nga xam ne carrément moo doon lancer le parti mais moom moo ko étouffé. naka ci naka da ko ba dara a plus dama ko woo téléphone ne ko mais on a validé la on a la candidature la candidature de Karim Wade qu'est-ce qu'on doit faire ne prenez votre responsabilité il a fui ses responsabilités kooku noonu mënatu ma nekk mënatu nekk sama kii quelqu'un boo t'a donné la responsabilité des jeunes ñu saisir le pour une question bien déterminée nga fuir ta responsabilité mais tu n'es plus responsable et je pense que tey su demee démission bi nii ñun ñu ko ne que carrément demoon na bu yàgg moo lenn <laughs> fu may daanee rek <laughs> peut être moom moom moo yëngu dem na mais suñu xam nañ dem na bu yàgg. Abdoulaye Baye lan mooy nekk sa kàddu bu suñu waxtaan bi. waaw euh, contentement rek vraiment ça fait plaisir euh, ñu échanger et aussi di si jum rek si sama matériel lu si baax aussi je pense que suñu tool la di remercier suñu technicien bi nga xam ne suñu amee. Euh, maaxaama ba seetaan ñun je pense que moom moo nekk suñu ginnaaw et ñoo fi di remercier bu baax a baax di ñaanal suñu président Abdoulaye Wade yàlla suñu borom bàyyi fi euh, ak wér ba nga xam ni le 24 février incha allah su koy war di pare mu tàllabaay loxo ñaar ko mu jox ko caabi incha allah xam nga rek <laughs> ñu ñu jubali Sénégal. ah ah. gis nga am na comme ni nga <laughs> ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, Abdoulaye Barry di fàttali ne kon euh, si nga def formation nekk membre. de la commission nationale, commission nationale à la communication du PDS di membre de la fédération nationale des cadres libéraux nekkit président de commission de communication des jeunes département bu Dakar commissaire politique de la sous de la communication digitale bu PDS yaakaar naa noonu la nekkit secrétaire général bu UJTL Yoff ñu ngi lay di jaajëfal comme ni nga waxee it euh, suñu candidat bu xaaj boobu Abdel di jaajëfal it mbokku internautes yi nga xam ne kon ñu ngi doon euh, bàyyi xel leen jox di daje rek euh, li a dara beneen